alors euh, sànq ñu ngi koy wax pourquoi vous avez choisi lu tax ngeen choisi ku ci mel ni El Hadj Diouf. xam nga tey OneXBet Sénégal daf di benn société boo xam ne nekkatul société bi ñu présenté. Mhm. te El Hadj dafa am benn profil boo xamante ne nii tey dafa nekk ci xolu sénégalais. parce qu'il a fait le Sénégal mu nekk benn kàngam dans le milieu du sport nekk ambassadeur nag fu ne. Mhm. ñu ne nag le choix de El Hadj ça revient le choix du peuple. te mu nekk koo xam ne tam dafa gëm sport. gëm jeunesse sénégalaise bi def fi lu fi kenn deful ñu ne euh, ci cadre boobu nañu liggéey ci moom parce que il a énormément de projet mm-hmm. mu am énormément de potentiel te gëm aussi li nga xamante ne mooy sport gëm jeunesse sénégalaise bi comme ni ma waxee léegi li yow waral ñu jël choix El Hadj Diouf pour cette année 2023 jëmale nag fii ba ilaawu Medina ndax élage suñu El la Euh, et c'est notre élage national alors ci wàllu partenariat boobu euh, madame Tine naka ngeen ko nar a defee euh, concrètement par rapport d'abord à la promotion du football sénégalais mais surtout aussi du football africain parce que yemu leen rek ci football sénégalais mais football africain mais d'abord ñu ñu wax un tout petit peu ci nga xamante ne moom mooy contexte local bi waaw ci contexte local bi nag gis nañ ne moom dafay dafay jàppale ay ndaw yu bari mhm. dafay jàppale ay ndaw yu bari souvent sans tambour xamante ne ni ci gox-goxaat yi lay ne les les jeunes yi nga xamante ne ils n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir l'aide familiale pour mën a génn du noyau. Mhm. Euh, nekk ñoo xamante ne dinañ leen ràññee ci milieu sportif bi. mu nekk tamit nit koo xamante ne ni tey euh, dinañ jot a liggéey ak moom dans le cadre de la promotion de l'emploi parce que tey ku wax Wanixbet xoox ne aussi société boo xamante ne tey on emploie plus de 200 jeunes. mooy des emplois directs. waxuma nag ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le milieu de l'emploi indirect comme les prestataires entre autres mu nekk ko xam ne tamit il sera un point focal boo xamante ne dina nekk entre ñun ak population bi en quoi faisant infrastructure soxla nañ ko au niveau du Sénégal soxla nañ koo xamante ne tamit dinañu jox ay euh, ay orientation par rapport au modèle sportif sénégalais soxla nañ koo xamante ne tamit dina dina dina nekk euh, un un garant de 1xBet parce que on parle du jeu mais mm-hmm. on parle aussi d'un jeu responsable voilà mm-hmm. alors ci wàllu jeu boobu ba léegi euh, gis nañ leen yéen a ngi accompagner le championnat populaire le championnat local gis nañ aussi seen partenariat ak euh, fédération euh, par rapport ak 2023 2024 ci naka ngeen nar accompagner toujours le sport gën a pousse rek gën a dem. Mhm. parce que tey ñoo ngi nekk les sponsors du euh, euh des du Sénégal. Sénégal te dañ koy yokkaat ndax ànd nañ ak ñoom. jëlandoog ñoom ndam li donc duñu bàyyi noonu dañuy continuer encore di édé la population sénégalaise surtout les acteurs qui sont dans le milieu du sport donc 2024 tamit nañu population bi xaar ci yeneen yu bees ci yeneen yu neex ndax 1xBet dafa wute ak yeneen euh, paris sportif yi nga xam ne dañoo nekk au Sénégal mm-hmm. ndax ñun lépp li nga xamante ne dañ koy recevoir ñu nekk aussi Euh, une société de droit sénégalais mi nga xam ne ne moo ngi fay impo mi nga xamante ne mu ngi jàppale jeunesse mi nga xamante ne mu ngi jàppale les acteurs du sport sénégalais donc fu ñu teg suñu tànk noonu lu dul yokk duñ ci mën a wàññi donc ci 2024 bi on prévoit aujourd'hui d'aider aussi les gens qui sont dans le milieu de la musique tàmm nañ di ko def di jël ay ambassadeurs yi nga xamante ne nii ils sont dans la musique di jàppale comme Pape Diouf ñu jël ñoo xamante ne tam ils sont dans le milieu du sport muy El Hadj ñu jël ñi nga xamante ne dañoo nekk si suñu sport local muy euh, Boy Niang mm-hmm. gis nañ ko jël nañ ak moom euh, contrat de partenariat y a moins d'un donc ci noonu tamit di rénover surtout di rénover ay structures sanitaires c'est vrai que duñ ci communiquer lu bari. wa ci social bi ci social bi. gisoon nañ leen dans la banlieue dakaroise. exactement nii ma lay waxee nii nii on rénove benn hôpital bi nga xamante ne mu ngi nekk waxi naan Nimzat. Mhm. loolu ak loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc on compte vraiment aider cette population la à travers les parieurs qui nous font confiance qui aujourd'hui fédèrent au niveau du sport mhm. parce que sport comme on le dit nekk benn benn benn globe boo xam ne dafay fédérer voilà alors euh, sànq dama la dégg nga wax lu am solo gagner un pari mais surtout un pari sport euh, responsable parce que aussi des fois pari yi dafa am yeneen njeexital yu moo xamante ne daf koy indi ci li nga xamante ne moom mooy sport parce que là on on parle de sport mais da nga lancer un message bu très fort madame Tine muy un pari responsable te loolu aussi dafa dafa nekk loo xamante ne lu am solo. toujours dafay nekk ci suñuy besoin de communication. ñuy mhm. fàttali pari yi ni lii di pari. il faut que nit di ko yemale ci lu responsable parce que boobu ba tey kàngam yi ñuy àndal dañoo am ay responsabilité sociétale boo xamante ne ni macha allah sans faute ñuy wax parieurs yi ne leen euh, di leen alerter c'est un jeu qui est interdit aux moins de 18 ans mm-hmm. si suñu communication à chaque fois dañ koy gis c'est un jeu boo xamante ne ni ça nous permet de vivre autour du sport mm-hmm. donc warul nekk loo xamante ne nit war na cee nekk tout le temps tout le temps tout le bañ na ba si suñu plateforme il y a un minimum à miser il y a un maximum à ñu am suñu service clientèle buy dox 7 jours sur 7 24 heures sur 24 di leen wax ne la seen service clientèle est exclusivement gratuit. d'accord voilà. d'accord alors euh, ñi ngi jëm ci Coupe d'Afrique certainement supporters yi parce que Qatar gisoon naa la ak 12e gaynde ngeen ñëw jàppale leen euh, cette fois yi par rapport ak 12e bi supporters yi bugg a dem. supporter en masse équipe lan la wan xbet nar a def pour accompagner. waaw loolu on est en projet on est en ce moment en projet pour déterminer naka nañuy ñuy mën a accompagner euh, toute cette gente là bi nga xamante ne football moo leen yitteel dem dooleel suñu suñu suñu lion du Sénégal yi. Euh, di lancer aussi un appel à tout à toute la population sénégalaise nañu mànkoo indiwaat ndam li ndax mhm. ndam li mu ngi fi ba tey donc nañ koy indiwaat mu gën a toog ci biir loolu tamit 1xBet Sénégal dina continuer di jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk le front ñi nga xam ne ñooy supporters yi ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ñi nga xam ne ñooy maison de presse yi parce que chaque année maison de presse yi tamit ñun ñuy jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax mhm. di leen wax ne leen la ñu tàmmoon di def bu ñu ko yokkul wàññi du ci am incha allah. merci beaucoup le mot de la fin lan lay nekk euh, kàddu gu mujj gi. di gërëm may dalalaat léegi El di gërëm bu baax euh, suñu ambassadeur bi. Euh, mhm. El Hadj de sa confiance de sa témérité et surtout de sa responsabilité. parce que daf di koo xamante ne ni tey kenn dootu ko présenté ci sénégalais sénégalais yi ñoo ko sopp ñoo ko bëgg ñu woo ko mu wuyu suñu mu wuyu suñu ànd ceeg pas-pas. ñu gis ne tamit euh, marque bi nga xamante ne tey moom la moom la moom la moom la dugal ci xolam muy Wanixbet si ngi ciy woo jeunes yëpp ñu ñëw gën ko cee jàppale parce que c'est un talent c'est un talent mhm. donc comme il l'a dit tout à dañoo nekk benn duo waaw dañoo nekk benn duo ñu doon moom voilà c'est un duo gagnant c'est un duo choc euh, di leen di ñaan tamit askanu Sénégal bi que lépp li nga xamante ne nii mën nañ ko mhm. pour supporter suñu lions yi ñu def ko mhm. ndax Sénégal la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar comme il vient de le dire di remercier tamit waa 7TV di équipe bu bu dynamique di remercier euh, toute l'équipe de 1xBet Sénégal Euh, di leen jox daje nag fii ak lu néew ndax ñoo ngi préparé lu ngande ngande ngande ci kaan bi incha allah fii Dakar ak région yi parce que on a beaucoup de boutiques yoo xamante ne. Mhm. ce sont des boutiques de réclamation yu ñu tas Sénégal. voilà merci beaucoup.